koro gay modum ge ci ñaar fukki fan ci Oh gi o haj ibrahim gay kam mo ngi bëgg critique de sagana bo fukki fanu yermande yi jeex ta woru ci ben fukki fanu ci top dg fasu ci ben ta nak ñoo muji ci bëgg fan yi mujji yu goral ci safara o haj ibrahim gay bu ko worut lambay ñaaw tax mu am lu ko naqari ay rang ko di rogalat xolam toy o haj ibrahim gay tay ji nak na selal na ci côté bu ne comme tiit na ci ëllëgam korok tayam ji du ko tayle tax ñu xëdd rek mu wutali juma ja ñu julli fajar ba noppi mu tee kurusam di koj koji rek ba mi di jot ci la nam ay tankam ngir dàq ji koor ba mu yegg sam la jadd kër xaritam ba sëriñam ba cheikh baay muhammad nuruddin ñas baay nuru o dg naka mu dugg rek jàmmalanteeg moom laata jàmmalante bi di sori wax na ko boppam xamal ko ne làqagut benn ci ay fan ci koor gi tax mu ñëw jéggalu si waa sëriñ daa bu nga defaral ma ñaan benn fan waraguma ko ci koor gi te démb maa ngi déglu benn waaraatekat muy tudd ay safara oh sama yaram daw Sheikh cheikh Baye Nourou ah li nga wax doy na waar de waaye koor nag da di jaamu yàlla boo xam ne gor rek ko man comme ni nga wax naa la dimbalee kéem li ma man léegi nag comme gëj naa laa gis da nga may yendul ñu toogandoo nii ci saal bi dg <laughs> ah, waaw loolu baax na kay waaye de waaw <laughs> nga defal ma ñaan de man daal fu mu di jotee rek sama biir bi <laughs> tàmbali di yëglu te suma la ko nëbbul fi may wax ak yow nii <laughs> sonn naa de <laughs> o oh, xaaj ibrahim gay mook sëriñam bile fu ñu jëm tey ndax cheikh bay nuuru xamal ko ne demal fële ca robinet ba nga jàpp jàpp bu set nga ñëw ma defal la ñaan DG ca la jubale robinet ba daal di jàpp jàpp bu sel nde da ko doon benn bennal mu dikkaat moo ngi coroon sëriñam cheikh bay nuuru diin ca la tàmbali te ca bopp ba di ko léemu di ko ñaanalit boole ci di ko laaj euh, su ma paree ci yow li ma lay defar ci dagg sa koor boo ko essayé sax doo ko man DG <laughs> ah oh, sëriñ <laughs> su ma xiifee nag mbaa du am ay conséquences bàyyi nuuru boo xiifee lan ci koor gi laa wax nga muñ rek DG <laughs> ah waaye bu ma bay bay waaja dee daal ah alaaj ibrahim mës ngaa dégg ne diw sàngam dee na te koor a ko rey diggante bi ngay bàyyi lekk bàyyi naan nit mënu ci dee laa yukallifullahu nafsan illa wusaaha yàlla lu mu teg jàmbi rek fekk ne jàmbi attan na ko DG te tax laa lancé dëgg la de dëgg la de waaye rek loo xam-xam demba ma demba gën laa xam boppam léegi daal la sa lox li ma gën a bañ nag nga wax ma loo dul def dégg nga la wax <laughs> waaw d'accord na d'accord na ban heure jot une heure du yaa ngi ci koor gi DG waaw waaw tey kay euh, maa ngi góorgóorlu sëriñ léegi daal naa la defaral ñaan waaye nag sama diggante yow ne ko dëgg lal la ngay wax lépp na doon dëgg lu ko mooy daa raxmati ngay fanaane DG <laughs> sëriñ <laughs> waaw koor gi de laataa mi sëriñ yéene naa julli naa wirde naa mais <laughs> sànq daal xaw ma daal yàq na wala yàqut bala maa dugg ci la ma xamut en tout cas bi ma waxee léegi ma dem jàpp ji naan naa tuuti rek tuuti rek <laughs> damaa xamul daa yàq koor gi wala bu dee yàqu ko daal li ma la wax lépp dëgg la ci man o oh, xaaj Ibrahim Gaye ci la sëriñam ba dakkal waxtaan wa joxoñ ko porte ba ne a na génn këram DG ci la daal di gëlëm